tadi bayang kan sini bayang lagi ñun ñëpp man barki dem laa seetaan vidéo bi mais tuuti samay rongoñ tuuti tuuti parce que bayang mbayangu ñëpp la mbayang amuloon kenn xaar ma yàlla barki suñu tubaa mbaake amuloon kenn xaar ma yàlla billaay walay xamul janja xamul joot billaay ñëpp la jàpp njabooti ñëpp xamul borom million xamul borom téeméer ñëpp la jàpp ëmb ñoom ñëpp xam nga ñëpp la ëmb ñëpp la yemale man gaan nag maa ngi laa ci benn appel ñun ñu nga nañu fexee dimbali ñu utal ne benn numéro boo xamante ni lu ci waay am ngir yàlla ak yonante bi nga jàppalee ko mbayam lu ci waay am xëy buñ ci dara nag man de man gaan ak personnel pare naa pour numéro bu ñu joxe bu ma ci amee sama ñaar dërëm su ma ci sama ñaar dërëm ma def ko ci ndax mbayam jar na lu mu nit ku baax la nit ku yëg nit nit ku am yëg-yëg ci nit xeebul dara xeebul kenn itam mm-hmm. xamul ma xamul ndaw vraiment ma ngi koy ñaanal yàlla mi nga xamante dara tuuba yal na ko yàlla suñu borom may wér amiin muy dund ci ay ñicoom xam nga bu lu mu nekk ci aaram yal na ko yàlla suñu borom defal ndax bayam nit ku baax la su may wax ci moom sax sama xel day fees te ni mu mel ci moom noonu la keneen mel ci moom ñun ñëpp la yemale xam nga mm, def affaire yëpp ñëpp ñëpp jàpp daal bu ñu amee numéro boo xamante ni daal ñu mbëri samp yi yëpp nag ñu mboolu ñëpp mm. mbër yëpp sax laay wax mbër yëpp xam nga numéro boo xamante ne orange ma lay doon wala wér lu ci waay am rek ñu dimbalee ko ko voilà merci loolu laa ci boon laajee ah, ci woon ñëpp nag dégg ok waaw